صفوف المسلمين والمسلمات يا أخبر يا معين وليس كهذا مولانا واثق بل خلص رزقكم بمستوى ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل ربنا تقبل منا ختم القران وتجاوز لنا ما كان في تلاوته من السهل والنسيان اللهم بل اختار ما خلقناه ونور ما طلبناه الى روح سيدنا محمد يا من متى تقول الامر يكن فاتح على حاجتك اسكن وكن يدك وكن مالي وكن لسانك فمولاي فكر سيدنا barke sëñ Tuba yàlla na ko yàlla na am ñuy def sant sëñ Fallu ñi ñu tàmbeeg moom bu baax na sama wala réew yàlla na ko yàlla dolli sëñ tuwantal ndax mu mel ni nag bis bi bu yemoon fii daanaka neex ndax ñetti téeméeri gaal la xam ne rek juróom-ñeent lu bari la xasida yi defe naa lim bi moom mënee su koo xam lépp ma fàttaliwul bis yu ñaata. ñeent ñeent. jës jës bu set. jës bu juróom-ñaar. waaw mawaahibu. mawaahibu. fanweer. quarante quarante ñeent fukk. sindidi quarante sindidi am na ñeent fukk. waaw li ayin ba si set. li ma defe naa biñ koy fàttali li ko gën a ci bi mooy alxuraan. ndax moom la daan gunge waajuram sëriñam nee na moomee la nañ ma alxuraan kon koo xam ne kii bind nga lu ma ñeent ci kaamil jox ko sa soo demee dégg bañ jëla fàttali bu jàngal la alxuraan joxal nañ la da bëgg na ko kon nag yàlla na ko yàlla àggale ko yàlla àggalee nag yàlla na ko yàlla xoppaat ci suñ kaw mbas mi it yàlla na ko yàlla yemale yàlla na ko yàlla yemale waxuma Sénégal kese waaye ci réew yëpp ñu mën a am jàmmaat kenn ku nekk delluwaat ci waaw waaw di ñaanal di sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy sëriñ Touba tey yàlla yàggal ko fi lool sama sëriñ it ñëwoon na fi dégg ci ngoon muy sëriñ Aboul Baraka moom sëriñ Falilou kooku it moom yàlla yàggal ko fi lool dëgër kon mboolem njabootu sëriñ Touba bi ak njabootu fii ñu koy defee maam Alaaji Malick ñëpp ak mboolem kilifa yi diine yi nekk Sénégal yëpp soxna si nga xam ne dégg naa moom gaañ yi yàlla muy doomi bàyyi ñas ñu daan ko wax na juróom benn fukki at yoo xam ne alxuraan rek lañu jàng kooku nag kenn gënu yàlla ko yàlla tàmbali am ñu dëkkale ko baax waaw sëñ Abbas fi teew itam képp ku si bëgg na teew yàlla na yàlla def dégg nga maanaam defal la ko def ay rawatina nag ñi nga xam ne parti bi bokk ci yëpp mbir yi soo xool seet na buy buy ndax lii ko defewul comme bopp bëgguñu ci as toog suñu yóbbu fenn dañ ko def rek wasaare fa si kalaataat pour moom xam ni itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na lenn ci gën a baax nit mu ci ko fi bokk na ci dégg doom ju baax joolee ñaanal sa ginnaaw ndax ñaan bi day def ci yow direct loolu doom la ci donc nag bëgg ma jàppalee ndax man tontu kat su ma woote woon wala ma bëgg a jàng benn saa bi moom képp ak dama koy jàng ndax bu ne yàlla na jënd ma dimbali dinaa wàcce butaan yi te danaa ko kon boo ko boolee semaine yi dégg ci at bi te at bi jeex na cinquante deux kaan yi wàcc naa ko nan kenn te lépp ñaan na ko ñaan maanaam sàgganiku prévenir di ñëw moo gën dégg bàyyi bàyyi ba jàngoro dina daal dégg nga ngay jël ko ku amul masque na ko bu fekkente ni masque yi ñu indi woon jeex na dañ seet kuy jaayi masque mu ñëw fi luñ fi jaay ma jënd ko fu mu ñu jox gel yaa ngi fi moom dañ koy raxasoo ba noppi rek kenn ku man alaw alaw xëy sama dund baax na ko jàng suba ak ngoon wala ba saa yu tuuti bi ñu ko def ndax sëñ Tuubaa waxat wax jàng naa ko fi ma toog ñoo ngi ñaanal itam ñi nga xam ne dañ leen koo tuddee ñëpp ku mel ni maam Cheikh Anta borom Kaolack ku mel ni ku mel ni dégg nga maanaam sëñ Adama ku mel ni sëñ Abdou Lakram ku mel ni dégg ma sëñ Cheikh Awa Balla ku mel ni Pape Malick Sy moom sëñ Babacar Sy ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fàttali rajo waa Gaal Góor a Faat Buumu sëñ Baye Baye Daam Alaaji Mbuur Agay ak kan Alaaji sëñ Touba Ndiaye ñun ñëpp waaw képp ku gaañu daal te daan jàppale fii ba ci imam bi nga maanaam Modou Fam Modou Fam rek Modou Fam mooy jàll ko yàlla jëfal ak ñëpp rek moom daal ñëpp ku fi gaañu daal képp ku nekk yal na la waaw yal na la yàlla defal xéewal àggale la ko kon nag xéewal yaa ngi fi bu ñu jullee ba noppi bu soobee yàlla ah ñu xéewlu ku wax gànna mis rek pour defe naa ñëpp ko xam ak ni mu bëgg Sëñ Tuubaa ni mu ko kiyee bu soobee yàlla bi fi def waxtaan suñ jullee tàkkusaan ba noppi ba ko ñëpp fekk suñ six heures dañu waxtaan waxtaan bu néew ak gan ñi fi ko defee dégg maam bu ñu amee lu muy mos ñu mos ko rek daf ca yeewee ba déwénaat incha allah الإنسان